monument o gar meke fiya final o mbosa mbero jaxaw a gidma roog a paax rek xeɗa roog a jam ndam final fe um jangin nda anda a mosa waga fita a an num koy am gan neke rek xale ka wa njana iya waga njom lam yof naga am njom i a kon koy bo sens rek i ok merci ci mbër ah sama mën a mbër nga mu baaxul ci mbër waaw a na a ci mbër moom a dafa a moom moom ah. baaxul ci mbër moom mais xam nga rek tey nga a doon mbër nga mu ba yow dem nga rek yàlla rek waaw léegi a final mbër waaw am naa ma ni ma ñaan bu nee na mosuma bëre ak moom sama sëñ bi moom mos a bëre ak moom Ousseynou. waaw waaw. mais gars yi ñu ngi la ne Ousseynou la wala Sène la. ah gars yi luñ wax rek. waaw Ousseynou ak Sène la wala Sène la. Ousseynou ak Sène la. waaw waaw boo jëlee boo bëre si. waaw ñun ñaar yëpp. mais gars yi dañoo ne Ousseynou mu ngi ci ginnaaw Ousseynou mu ngi ci ginnaaw Ousseynou mu ngi ci ginnaaw Ousseynou mu ngi fi Sène mu ngi fi. waaw waaw. war naa se. di laa la yow baax na allez bonne chance. jaajëf jaajëf ok jaajëf jaajëf ah arbi bi sifle na baa ngi noonu monument Ndianda ak Assane Assane moo féetee ginnaaw ngemboo ngemb lu verte li monument Ndianda moo la féetee càmmoñ ndeysaan ñoom ñaari ñu ngi noonu ci final bi ñaari xale yi ku ci nekk def na li mu war a def ba finalu ku ne bëre waaye Assane moom nax naa gaay nax gaay yi nax gaay ba finalu Assane ñëw na ba bëri final sotteekuwul benn butéel <laughs> mooy borom ngeen lu verte le léegi naa ko daal lax nga gars yi ba finaaloo xaw ma ak monument Ndiatta daw na jëli ko plaqué nañ ko daan nañ ko monument daan na Assane monument daan na Assane monument daan na ko.